mu ne naxnu banu dimashq dallat fasaaxatuna ñun ñooy giiru dimask bi nga xam ne dallat tegtale na fasaaxatuna sunu kàddu foo dégg suñ kàddu rek xam ne ñuy waa dimashq lañ nee na man ana min al arabi al urabai tunsabu ci arab pur arabe yi lañ may cosaanale nee na yow nag muy werante in lam taqum soo jógut bi bayi naatin an tunsibu naa nga indi ay leeral ci suñ cosaan ñun mu ne soo ko indiwul mhm. nee na ma indil la ko nee na suñ cosaan ñun tati dana ñëw ila nisbatil kurama u bin arab nee na ci piir tedd nga fa tedd nga cosaanoo ci arab yi nee suñ cosaan ñun foofu la jóge nee na fas al nag na nga laaj jamiu bilaadil arab ci mboolem réewi arab ci benn kàddu wa suudu taarifu maa fi zalika bin kasbin te képp ko xam ba ci nit ku mën doon xam ne wax dara ci fenn amu ci sawil fasaaxa mu ne koo xam bii ci biir kàddu ga dafa leer nañ wa su daga nee na mooy teen dafa jaxasi ñuul ak weex te moom la ñu doon wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na weexul ñuulul wasilatu naa nee na suñ jokku ñun fanu jokkoo moo jiitu sërëf ak tedd nga neex fan jokkoo nooy banu kinaanata mi nga xam ne fiihim afqarul arab arab buy tiituru tiitur ci banu kinaanata ngay commencé nee na xarrat najaabatu naa ñun sunu der set na. wal ilmu nee na xam-xam erfatu naa nee na mooy suñu métti ñun. moom la ñu xame nee na wal fóodu taarif ana nee na képp ku mën a doon nee na te ngay tëgg wala ngay xam origine nee na xam nga ne an naa ñun maadinul kutubi ñun ñooy tëggati mbelleeri téere yi téere yi bu desee tey ñu koy jàng ñun ñoo tax téere yi des aayil kan moo ko wax ah hada maqta min qasidati allati qaalaha jëdd aali kan aayil kan al aaidu kinaani al maaruf bi aayil kan moo ko wax fil qarni onze tawaffa mi ngi faatu nee na atum mille quatre vingt six euh, nee na euh, kii miladiya xasaba riwayat ci yenn yi wax Colombo moom moo ko wax xam nga Colombo lu mu wax ci historien la boo xam ne lu mu wax dëgg la surtout mi ngi ko wax ci empire du Ghana. ah fi xawliyaat Fouta nee na boo demee Fouta ci Sénégal aussi nee na boo demee ci archives yi la Rousse la Rousse aussi bind na ko la Rousse bu nekk Paris. bu Paris bind na ko mille euh, neuf cent treize. suuru al Chérif muy wax ne al Chérif al Aïd al Kinaani. al Aïd al Kinaani Chérif Aïd al Kinaani. Mm-hmm. ah fii haada euh, al maqda min qasidatin tawila ci ci benn qasida bu rëy. Mm-hmm. boo xam ne mi ngi koy wax. ila watanihi ci réewam al asli bi ñu cosaanoo mm-hmm. masqatu raasi ci fi fi mu juddoo moom mm-hmm. eh, masqatu raasi jaddihi abdallah ibnu salah fi mu juddoo wa salika nee na foofu nag bi madinati madaini cham bi ngi nekk ci cham dimasq mm-hmm. ak taarixiya bi nga xam ne mooy borom histoire bi asima muy capitalu al xilaafa al islamiya capitalu xilaafa al islamiya alati ba nga xam ne taaqud nee na dana dana jàpp nee na muaqalan min maaqilil arabil asasiya mbooleem ku am xel tey arab fa la jóge te xelam ak cosaanam nee na fa la jóge fasahatun nee na ci seen seenu kàddu nee na haysu taiddu alfasahatu ana daka min mujtamaatin raia nee na te booba jamono fasaha làng ci la ñu xammee kii fu mu bokk ak fu mu jóge nee na laa zalat déet buy jóg mukk di dañ ila yowmina hada ba bis bi tey walanta ahad alqiraa alkitabiya ah taaddu alfasaha inda zalika dalilan an urubati ashaabiha nee na nag ak arab su fekkee ne dañ koy xool di ko wër fen nee na ci ñun ñii la fekk cosaan ndax ñun ñoo ko doon avant ak shérif di ñëw kinaanata eh, waaw mu ngi nii eh. Eh, nee na summa nag inna shérif hmm. kinaani shérif hmm. kinaani fi tahdidi luxumihi luxumihi yataxaddas neen mi ngi wax an nasab bi cosaanam الحديث الوثائق من نفسه الموافق نصه المؤمن بالعداله إن كن إن كنتم لا تثقون بما أقول nee na bu fekkee ne bi gëmu leen li may wax. fas alu laaj leen jami il muarriqin mboolem kuy historien arabe. ci biir ci téere la ci ci historien arabe yi. nee na wana saa bii ah wana saa bii bilaadi su Soudan an nasabina nee na sunu cosaan fi ñu jógee. nee na mooy ci Afrique waaye fan lañ jógee ci Afrique muy ci banu saarax nee na banu saarax nag boo leen di wër na wa sa yuxbirunakum ma xamal leen na nag ne am na naa naka ñun minal alawiin ñu ngi bokk ci Ali ibnu min bani Hashim bokk ci bani Hashim bani Hashim min bani Hashim nag nee na nag min bani ca bani kinaanata bi mu jógee ci benn kinaanata nag mhm. nee na asxaabul fasaaxa ñooñu nag ñooy borom kàddu yu leer yi wa sudada wa amma qawluhu nag banu kinaanata fihim afqarul arab nee na bani kinaanata nag ci arab yi mhm. benn arab buy tiitaru ci kanam bani kinaanata amul ndax fa la tiitar yam fa la cosaan bu rafet ci ci arab am nee na fa yaani bila shakk leer kenn amul cosaan hmm. kenn amul sikk sàkk ci loolu bani haashim ashraf moo gën a tedd ci Quraysh bani haashim te bani haashim nee na ci kinaanak lañ ko lañ ko seppee wa yaani zalika qurayshun ashraafu bani kinaanat nee na qurayshun ñooy shérif yi bani kinaanat mutamassilan nag nag li koy li nga xam ne moo koy leeral nag mooy waxu nabi sallallahu alayhi wa sallam moo wax te naxnu ñun min bani nadar min kinaanata lañ jóge ci bani kinaanat wa qawluhu alayhi salaatu wa salaam yéen salaay salaam wax ne. Mhm. inna allaha naka yàlla. Mhm. istafa sellal na. Mhm. kinaanata. ba ne kinaanata sellal na leen. min waladi Ismaayila ñoom doomi Ismaayila lañ. yàlla sellal leen. min bani kinaanata. wastafa nag yàlla sellal. quraysan qurays. min bani kinaanata yàlla dem ba ci biir bani kinaanata sepp ca quraysin génn ko ci. wastafa nag yàlla sellal nag min quraysin ci bani qurays nag haashim mu génn ci Hachim. su ma safaa nag yàlla daal di sellalaat nag min Hachim ci Hachim nag ah. rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax rasulillahi mu ne ana man rasulillahi xiyaar may tànneefu. xiyaar tànneefu xiyaar tànneefu. xiyaar yi lu tax. mu def ko ñeent. ma nga jóge. ca Kinaanata. Kinaanata. ah Quraysh. Quraysh. Hachim Hachim. Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam. moo tax mu ne ana xiyaaru ñu ne benn mm. xiyaar mu ne ñaar mm. xiyaar mu ne ñett na xiyaar mu ne ñeent mm. <laughs> foofu la cosaan yem tànn <laughs> moo tax faale ma faale Moustapha loolu indi baat Moustapha tey laa gën a xamante sama bopp xam nga lu indi Moustapha Moustapha mooy sellal googu sell googu yàlla toxe di ko sellal di ko sellal di ko tànn di ko sellal ba mu sell moo tax mu ne ko Mouhamadul Moustapha ku ma mën a jaay tiitar amul fen amul fen hmm? amul fen barke rasul waaw yow bu tudd bu tudd rasul lay sax nga am titre mhm. na ndax kinaana la mhm. kinaana ta fa la rasul fa la yonent yëpp cosaanoo ismaila ibrahima ñëpp kinaana la looloo cosaan laay cosaan rasulullah sallallahu alayhi wasallam boo xamul sa xamoo sa bopp xam xam sa bopp a neex moo baax may lii moo neex ana xiyaaru xiyaar xiyaar xiyaar xiyaar hmm. extraordinaire partie magnifique partie waaw ah, bii moom vraiment moom c'est dafay wax bu wax bu waaw clôturer lépp tey boo dajeeg tey pour euh, Abu Dhabi kii moom dama lay xamal hmm. kii moom dama koy def nii waaw hmm. euh, wax ji yëpp lépp fi la ne hmm. wax day am adresse day am laaleel wax jéeg yëpp fii la daale bi nga xamee nag bari saalax yëpp fu ñu jógee ak pour ci saano ak fu ñu bokkee boo ñëwee ba ci Moussa mu mu al Masna mhm. ci ngay ci ngay gindikoo fi la ñaari lignes yi duggee. Mhm. ligne Xasan ak ligne Ousseyn. wallaay ci ci fa lañ duggee. ci kan ci Fatimatu. déedéet. déet. kiñ jur. fan ki. kiñ jur avant Moussa Diawlu. Abdallah. Abdallah. ma ne ci duggee Kaabil Abdallah Kaabil. Mhm. fa la duggee mën a fa la ñaari ligne ligne yi daje kan moo indi ligne bi fa la Assane ak Ousseynou daje suñ la waxee suñ la waxee ne la Chérif da ngay fekk ku naan man Chérif laa fii ak Chérif laa fii ah, waaye man Chérif laa kaamil kaamil kaamil kaamil laa mën na doon kaamil nga ne ko min min Abdallah kaamil min Abdallah kaamil ibnu Fatima ibnu ibnu Husayn ah min Abdallah min min Hasan al Musna ibnu Hasan al Sibti ibnu Ali ci ñaar ndey ak bàyyi ñoo la séq bete bete <laughs> looloo ko yittu tey hmm. da ngay dajeek naar hmm. dajeel par exemple tey jël Abu Dhabi wala hmm. Saudi sax nga dajeek ñoom ñu ngi lay jaay titre waaw boo ko posé question ne loo muy ci mën nga wax ma fu sa titre nekk ci man amul déglu ko nag la may titre la la buur la bu baax nga ne ko ndax sa nguur sa buur bi ngay def ndax mës naa ndax ndax yaa nguuroo ne yaa tooy di nga nguuru. ci empire xanaa. bi boo tàmbali. bilaay léegi dal ko bala ngay xam loolu xool lu am tumut. nga xam ni tey li y'a y'a quinze ans amul ah, y'a vingt ans trente ans sax amuloo fi donc ab ah, te te loolu depuis ay mille ans mille ans ngi noonu. te wax ni moo neex. ah mais fu mu yem nii. foo yow yow. fii la yem waaw nee na mhm. anna sharif kiraani mhm. lam yaktif bi iqaamatil bayi al bayina mhm. al qaatiha ala sihati daawaat an nasab al quraysi al haasim nee na kinaa sharif eh, kanaani nee na leeral na mboolem luy cosaanu eh, nasabu quraysi ak haasim faxas bi déedéet loolu dong la yam bal nag moom yu akkidu zalika loolu da koy dëggal bima haballaahu bihi eh, baytuhu bayna suudaanil xana nee na nag waaye li muy gën a tiitaru mm. mooy la ko yàlla wàcce suudaan <laughs> yow am bi bu kenn mës ta yor yi àdduna waaw eh? Eh? waaw waaw moom wax loolu mm. moom suudaan nee na min a nacaaba wal araasa wal ilm ak xam-xam wal qudra ak pouvoir mm. wal fatwa nee na ak ak ubbi faddalal nee na ay ngëneel minal xelmi nee na ci ci lewat wal axlaaqi tayiba ak jikko ju rafet ah non looloo jar a takk waaw waaw nee na ci loolu nee na nee na nee na fa la fa lay kontaane mhm. wa yujassidu salika ala ma ala ma dakarahu albikri fi lmasalik walmamalik haysu ashara ila anna bi madinati xaana isna ashara masjidan fukki jàkka ak ñaar moo fa nekkoon ci gànnaar à l'époque madaaris al quran ak école al quran hmm. ah hmm. wa aimata nee na ak imaam yi hmm. raati bu nañuy jiite kuntu man wa man yakunu haulaai in lam yakunu barisa nee na naka ñii su fekkee ne du barisa wax kan la war a doon war a doon wallaay xanaa xamoo Tumbuktu la gars yi inspiré wu foyer religieux bu di mat mbuxtoon ki inspiré wu foyer bu pire bi ñoo hmm. inspiré wu ci di mat lii yëpp xam nga lan la lan moo koy indi hmm. lan mooy indi defar loolu am bu réew xam nga ko waral hmm. détermination nahnu banu dimashq dallat fasahatuna ana min al arab al arabai nantasib in lam taqum bayinatun anna nisbatuna تأتي إلى نسبة كرماء من العرب فاسأل جميع بلاد العرب قاتبة wa suudu taarifu ma fi zalika min kazib zawi lfasaha wa suuda waslatna banu kinaanata fihim afqaru larab qarrat najabatuna walilmu xirfatuna walfuudu taarifu ana maadinu lkutub hada min maqtain min alqasida allati qalaha jadd alikan العائد الكناني المعروف بآيل كم في القرن إحدى عشر توفي في عام 1086 حسب الروايات التي جمعها كولومباني في غيدة ماغا سنة 1913 في حوليات فوتا السنغالية الولاروس بباريس 1900 huwa salaasata ashara yusiiru alsharif alaaidu alkinaani fi hada almaqta min qasidatihi altawila ila watanihi alathliya masqatu rasi jaddihi abdullah ibnu salah wa zalika bi madinati madaini sam دمشق التاريخية عاصمة الخلافة الإسلامية والتي تعد معقلا من معاقل العرب الأساسية muwaddihan bi zalika nisbatuhu al arabiya samim wa mustashhidan bi zalika ala fasahatihi al arabiya wa fasahati baytihi haythu tuiddu al fasaha anadaka fi mujtamaat zanjiya aglabatiha la zalat wathaniya lam taud al qiraatu wala al kitaba tuiddu al fasaha inda zalika dalilan على عروبة أصحابها ثم إن الشريف الكناني في تحديد لقسومه يتحدث عن نسبه عن نصبه حديث الوثائق من نفسه الموقن بصحة نسبه المؤمن بالعدالة قدية قائلا إن كنتم لا تثقون بما أقول fasalu jamia muarriqi biladi larab wa nasaabi biladu sudan an nasabina banu salah wa sa yuxbirunahum bi annana min alalawiyin min bani hashim min bani kinaanata asxaabu alfasaxa wa suuda wa amma qawluhu banu kinaanata fihim afqaru alarab fa yaani bila shakk bani hashim ashrafu ashraafu quraysh ويعني ذلك قريشا أشراف بني كنانة متمثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن بني نضر من كنانة وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى قريشا من بني هازم واصطفاني ما استفاني من بني هاشم fa ana xiyaaru min xiyaar min xiyaar min xiyaar bi yaddi Cherif eh, al Kenani al Ailu Ahmed Kane